sabab yi ba tey ñëw si sabab yi tamit waxoon nañ sabab yi yi yi mooy ki nga xamante ni baaraam bu dolleeku moo laal cër yooyu ne leeral nañ ko ñëw di yegale mu ne wa dalil lay tettale ala wujubil wudu si war jàpp bi masi zakari si laal zakara maa wata li nekk wata ah, abi daawud ak abi ak tirmisi an busra di si busra ah, bintu sufaan bint Safwan annaha na moom samiatu dégg samiat dégg na rasulallah yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqul wax na iza massa bullahi li ahadikum kenn seen zakaru zakaram falyatawadda na jàpp mu ne lay dalil mooy li nga xamante ni nga xam day waral jàpp mooy ki nga xamante ni dafa laal zakaram yeneen si wata ak Abu Dawud ak Tirmizi ak Basrat bun Safwan ne dégg bun Safwan dégg na si yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne kenn su laalee zakaram Ah, jàppam dafay yàqu kon bokkut yonent yi sallallahu alayhi wasallam bokkut leerul yu naan ay su ko fi fii fi fii de moom dafa su laalee zakkar jàpp dafay yàqu waaye ba xam-xam yi ñoom leeral ñoo ko ñoo ko leeral di tënk ni su laalee fu du tënk loolu jàpp du yàqu mu ne qaala wana tilmidi tilmidi xadis nu xadis la xasan bu rafet saxiin bu wér wa qaala wana buxaari buxaari mu asixu say moo gën a wér samitu dégg naa ko fi baab si buntu wa maa yuxaalifu wuute moom dayif na aji lott mu ne waaw kon mu ne xadis bi bu rafet la bu wér bu rafet su déggee mooy bu xadis bu wér la mu ne jëleen si buxaari buxaari ne xadis bi moo lu gën a wér bu ko wutee moom rek xadis boobu moom lu lottal kon hadis bi hadis bu wér la ki képp ki nga xamante dafa laal zakaram ah, dafa laal zakaram boobaa su laalee zakaram boobaa njàpp li dafay yàqu waaye su wuti ku wuti hadis bi rek boobaa sa hadis boobu hadis bu lottal Buxaari moo wax moo fooy ma dégg na min qawli Asim wax المتصلات يجوك أنهم لا ينتقد ياقو بمسيس لا بعد قطعة قرام مدقو بعد قطعة قرام مدقو ولا بموضع الجب جاكنا برب برب آه برب مدقو ولا تزد بان يقول ولا بمس ولا بمسيس لا ذكر ذكرم غير قدم إلا قصد وجوب أو تز ولا بان ونسينا كي عامتني آه دفع لا ذكر بخم دفع جوكو dafa jokk mu ci zakaram la laal noonu boobaa loolu dafa yàq njàpp waaye nu muntu laal dafa yàq njàpp kon duñ si saatal ay duñ saatal boo xamante ni dafa ban dafa dafay bànnee wala di saa jublu bànne wala amu ko ci loolu su ko laalee ah, zakaram loolu dafay yàq njàpp waaye su nekkee tamit zakara boo dafa dagg ba moo xam barab bu mu daggoo foofu noonu mu laal zakara dagg noonu boobaa loolu du yàq njàpp su nekk dafa laal zakara boo xam dafa dagg loolu du yàq njàpp wala mu laal zakara jàmbur loolu tamit dafa yàq du yàq njàpp lu may mu laal zakara boppam ba waa loolu dafa yàq njàpp waaye su nekk dafa laal zakara jàmbur boo xamante ni ba waa su nekk di saa jublu bànneex wala mu am ko si loolu dafay yàq njàpp mu ne fayin xiila wana ma farqu lay teqale bayna lam si diggante laal wal mas ak la wal mas ak laal lam ak mas lépp laal lay firi waaye dama wutee man fal jawaabu la tontu ana lamsu na laal mulaqaatul jism mooy dajee jëmu jism aaxir ñooy beneen jëm ala waji ixtibaar si wàllam nattu mu ne kon ah, ki nga dafa laal ah, dafa laal ah, lamsu ak masu ne benn la benn liñ firi laal lay waaye wutee am na ay kii mooy li teqale ñoom ñaar bokkun mais lamsu mooy ki dafa laal laal jëm boo xamante ni dafa laal boo xamante dafa jublu bànneex am ko si wala laal boo xamante ni dafa am nattu boo xamante ni bu laal dafay laal ngir mu am si wala mu laal xam ne dafa nooy wala loolu waa loolu lañ tuddee lamsu waaye boo xamante loolu lañ tuddee masu mooy xamante laal rek laal rek jëm ñaari jëm laalante rek waa loolu lañ tuddee masu kon ñoom ñaar bokkun loolu jaak loolu tax ubira firéneen fi so istartum satal fii si moom alxasdu jublu bi lam si laal wal mas ak laal mulaqaatul jismi axir may dajee benn jëm ala waji ixtibaar may si wàllam nattu kon wax ne duñ satal kon masu mooy li nga ni dafa laal jëmm lam su mooy li nga xamante jublu si bànneex mu dafa laal ngir anama nattu mu laal ngir xam si dara wala xam yaram bi dafa nooy wooyu noonu waa loolu lañ tuddee lamsu waaye su nekkee dafa laal ñeeg amul si moo xam jublu si moo xam amu ko si boole ñu tuddee mas kon mas ak lamsu bokkul wali daaka loolu tax xubira fi ne fi jaani bi zakari si laal zak ah, si si wàllum zakar si laal laana naq dina yàq yasu dina amee bi mas ah, sa wante la ah, tayr wala dina ful dégg moo ful si zakara ànd na moom law mas bu laalu seyaan dara mi jase di si waaw moo xam si waaw لدود ذكر مني سنك كهامتين دفل سنك سوال ذكر لين قول ووام سنك دفلا ذكر بوالو لبي يقن جابو مني سنك كهامتين دفلا في دفل جلسة موقتيني موقتي لال ذكر جام لال ذكرم بوالو لبي يقن جابو وابو لين تدي masu boo xam dafa laal nii rek boobaa boobu lañ tuddee مس من ومفعول ذلك الذكر ذكر لو أنه لو مس بلالا شيئا درى من جسد الزرم سواء لدو ذكر لا ينتقد ياق ودو نجابم كالدبر كم جناو سنكين الفلال فدود ذكر بموي ملال سي سي جناوم wala foofu noonu boobaa loolu du yàq njàpp waaye su nekk dafa yàq dafa laal jàkkaram boobaa bu foofu lay yàqee njàpp قال ونقلل القليل لا بمسجد لا, لا بمسجد دوبن سلا الجناو والأدي تاغن لا الجناو والأنثى ني تاغن نار ويوري ولا فجن تاغن بي ولا فجن سارة تاغن بي قلي بجين ولا دابة تاغن daaba illaa an yaltise la muy bànneexu bi masi si laal fajjihuma seen pay ñu ñaa fente dina yàq wudu njàppam ne ওখানে কারা আমার তিনটে পাল্লা আল জাকার জাকার বা বম্বা আলো লেভে ইয়া জাব ওয়াই স্নেকে মোম ওয়ান জাকার চাম্বাতে জাকার লানো ওয়াই স্নেকে দফাল্লা আল ফুদুদ জাকার আমি কমুলাল ginaaw wala mu laal ah, ñaari way yore loolu noonu du yàqu jàpp wala mu laal pay xale jigéen wala mu laal ah, pay daaba loolu noonu woo foo moom wutee ne waxoon nañ ko mooy ki nga xamante dafa laal pay xale bu jigéen loolu su nekkee jublu ku si amu ko si loolu yàq njàpp waaye su da saa jublu bànneex am ko si dafay yàq njàpp waaye borom borom risa dafa waxoon loolu dafay yàq njàpp waaye borom osmaan yi dafa waxoon ni loolu loolu du yàq njàpp mu ne su nekkee si wàllum jëmm na mu ne fente dina yàq wujuun njàpp bi su wutee yaramam fala naqat du yàq njàpp loolu tëdd bànneexu na bii si moom kon moom wutee na ki nga xam dafa wutee si nag dalaa zakaram boobu lañ wutee waaye si nekkee ki nga xamante ni la laa wala jëmu daaw daaw yaramam yooyu noonu waa loolu dila saadi saaju bànneex wala am ko si loolu du yàq njàpp loolu moom ñëpp dëppoo ni si ku laal jëmu xale loolu yàq njàpp waxtu la fa wutee ne fii masi marati si laal jigéen kon wax neen mu a waxtu la fa wutee na fi mas maraat si laal jigéen fal jawapayam fi ijaab al wudu yi war ak njàpp bi daalik si loolu kon wax neen góor moom booba dafay yàq njàpp nu mu ko mun si laal dafay yàq njàpp su nekkee da ngaa laal si tënk da ngaa laal fu du tënk loolu du yi ñuul ñuul yooyu ñuul waaye du yàq njàpp kon ñëw si zak si awra jigéen su nekkee jigéen moom dafa laal zakaram booba moom ñëpp dafa laal zakara boobaa moom naka jigéen dafa laal zakaram du yàqu kon jigéen ak góoru ah, bokkun foofu jigéen su laalee zakaram foofu njàppali du yàq waxtul fa wutee ne moo tax ñëwaatee saraam na waxtul fa wutee ne fi mas maraati laal jigéen a jawapayam fi jaabat wudu su waroon jàpp alayha si moom bi zalik su lool mu ne su nekkee ki nga xamante ni jigéen boo xam dafa laal payam ah, dafa laal payam boobaa loolu loolu du waral jàpp du waral du war mu على عدة روايات جلس بين رواية أحدهما بين عدم النقد على عدم رواية أي نقل أحدهما بين أحدهما بين عدم عدم النقد من ناقي يقنجاب مطلقا منتمي على على عدة riwaayatun si lim ay nettali ahad ahada benn adamu naqli mooy ñàkk yàq njàpp mutlaqan moo demee ba yemum as-sahih mooy lu gën a wér al-mu'awwil sukkandiku aliyaas moom fi mazhab si ngir bi wa mazhab mu dawan ak ngir mu dawana wastadara commencé na biyaas alaamatu qalil borom xam mun altafat dugal baaram bi am laa wala di sawtee am na ñetti am na ñetti anam waaye ñeenti anam la waaye kii moom ñetti anam la fi andi mu ne bu si njëkk ma ka xamante ni dafa laal awraam jigéen bi si nekkee dafa laal awraam am ni nu ko muntu laalee njàppali yàquwul nu ko muntu laalee njàppali yàquwul boobu mu daa moo gën a wér nu muntu laalee njàppali yàquwul waaye tamit am na ñeneen tamit si nekkee te loolu moo gën a wér si la sukkandiku si la ngir imam Malik si la ah, mu dawana sukkandiku mu ne si la borom xam-xam xalil ah, sukkandiku borom xam xalil ne su dugalee baaraam moo xam daa dugal baaraam boo xam dugal ko loolu du yàq njàpp kon borom xam xalil moom si la commencé ne si nekkee ah, jigéen zakaram dafa laal awraam jàppale yàqu kon lu gën a wéer kon ñett anam bu gën a wéer mooy jigéen bu mën su nu mutu laale awraam jàppal yàqut waa wutee ni am nañu wa tafsiru teqale benn iltifaaf iltifaaf diggante bu mu dugalee bayna ilti bayna may diggante bu mu dugalee ba an tadxul mu dug asaabia baaraam bayna safariha diggante tuni tuni awraam fay jibu dina war aliya si moom aludu jàpp wa adamu dina ñàkk wala jàpp mu ne kon wuti ñaareel bu wax bi mooy ki nga xam mu ne si nekk ki nga xamante dafa dugal baaraamam dafa dugal baaraam bi si biir mooy si biir tuni awra boobaa loolu dafay yàq njàpp mu ne dafay war mu njàpp waaye jëleen mu ne wa fi riwaaya jëleen si benn riwaaya bi istihbaabi sopp alwudu njàpp wa qad alimta xam ne an na arjihan lu gën a lëng bu njëkk bi wax ju njëkk ji mu ne kon benn riwaaya ñetteel bi mooy ki nga moom dugal na baaraam dafa dugal baaraam si tunaawaram bi mu ne loolu dañuy du yàq njàpp waaye dañuy sopp mu jàpp waaye ñeenteel boo xamante amu ko mooy andi ko mooy nga xamante ni moom su nu muntu am na ñeen nu muntu laale awaram jàpp li dafay yàqu kon ñeent anam moo am si si si xamante ni jigéen su laale awaram ñeent anam moo am bu ci njëkk mooy ki nga xamante ni nu am ñeen nu muntu boobu moo gën a sila uh, ah, uh, ah, gay sila gay sukunitin sehingga İmam Malik sila menjadi mutawatir temiz sukunitin sila beramkam kalil kamasi. Wa wakin yara bimaki kamatu ada fatugal baram si bir ah, ada fatugal baram si moy si tuni awrami wa lool moom loolu nii dafa yàq am nii dafa yàq kun dafa di leen si benn waaye ñetteel bi mooy ki nga xamante ni su dugalee baaraam yooyu la muy sopp du yàq jàpp waaye day sopp mu jàpp ñeenteel bi mooy ki nga xamante ni ah, mooy si ah, laale aw si laale awraam nu mu muntu demee loolu dafa yàq jàpp kon ñeent anam yi moo mu ne mu waaye bu si gën a mooy nu mu muntu laale awraam jàpp du yàq tan biir aw yetti la mu ne lam yas ko tuddun al musadif taalakat bi al qismu salis xaaj bu ñetteel min mujibaat wudu si waral njàpp woo moom ah, ar ah, ridatu mooy ar ridatu ridatu mooy murtat wasak ar ridatu mooy murtat wasak mu ne kon yàq njàpp wax neen bu ci njëkk mooy ak sabab toj yi wax neen mooy ki nga xamante ni mooy maji wala waji wala man yi wala waji wala tuur ndox wala maji wala dem duus yooyu noonu wax neen ci toj yi la bokk ak sabab mooy na du yàq njàmm na fa xew mooy xam wala màndi wala dof wala daanu jinne wala wala laal ba si laal leen nekkoon moo xam laal zakara moo xam laal yaram kon ah, loolu mooy wax neen toj ak sabab ñetteel bi mooy bi nga xamante ni mooy murtat ak mooy ba nga xamante ni du nekk du nekk du ah, mën naa nekk mën naa nekk ñetteel bi mooy ñetteel bi mooy nekku toj mooy bi nga xamante nekku toj nekku sabab mooy bi nga xamante ni mooy ñaari ñaar la mooy bi nga xamante ni murtat ak sikk murtat murtat ak sikk la sikk kon murtat ak sikk loolu dañ fay dañuy yàq njàpp mu ne ah, waf mu ne murtat ak sikk dañuy yàq njàpp mu ne walam ah, وقال قال وانا قليل قليل ومتد متد بسك وسك سك في حديث تج قال وانا قليل قليل من وبردة متد وبسك سك في حديث تج بعد تهر جنا ولا علم قرن المستنك المجد تقو وبسك سك في سابقه ما سجيتك نمنا من mutad ak sikk loolu ñoom ñaar damay dañuy yàq njàpp waaye jëleen si xali ne su nekkee ki nga xamante ni dafay mutad wala muy sikk si nga xamante ni sikk sikk boo xamante ni dafay dafay taqoo moom sikk boo xam ne chaque jour lay ñëw chaque jour dafay sikk saaka comme ça bis bi yëpp day sikk saaka boobaa moom loolu du yàqu jàpp kon comme ni waxoon rek nga xamante ni dafay dafay sikk saaka chaque jour boobaa kon kooku jégal leen ko waaye su nekkee dafay tëbale boobaa kooku dafay sikk boobaa njàpp li dafay yàqu mu ne والمراد ينم أسك سك a ناقد أجياق مطلقا نون دمي سواء مقام كان نكنا في حديث توت أو سبب ولا سبب إلى ردت نلوي موتات فلا ينقد فلا ينتقد ياق الودون ياق بسكن سك في اسمه من كي xamante ni ah, dafa mutat mutat di sikk comme di sikk boobaa moom nu mu demee ku xam dafay sikk wa boobaa nu mu demee dafay yàq njàpp mu ne waaye nekk ki nga xamante sikk sàkk di mutat di sikk sàkk naan ba murtad wala murtadul boobaa loolu loolu koo xam dafay da day sikk sàkk mutat wala murtadul boobaa loolu loolu kenn du kenn murtad kenn du fi kenn xamu fa sikk murtad kenn xamu fa kuy sikk sàkk murtad na wala murtadul boobaa kooku dañuy jàpp ne kooku murtadul kon koo xam dafay sikk sàkk murtad na wala murtadul boobaa dañuy jàpp ne murtadul waaye sikk na sikk moom am na fiq sikk moom am na ñetti xaaj mooy ki nga xamante ni dafay sikk saaka jàpp na dafay sikk saaka toj na wala tojut waaw dafay jàpp na toj na ak koo xam dafay sikk saaka jàpp na wala jàpput dafay sikk day jàpp ne jàpput ak koo xam dafay sikk saaka dafa jàpp ba pare muy sikk saaka dafa toj dafa toj dafay sikk saaka na dafa toj ba pare soog a jàpp wala dafa jàpp ba pare soog a toj waaw dafay jàpp ne dafa toj ba pare soog a jàpp lu boobaa kon kooku dafa day jàpp ne dafa jàpp ba pare soog a toj waa kooku dafay dem boobaa dafay dem jàppwaat kon ñetti anam yu wax yi boobaa dafay kooku dafay war mu jàpp mu ne ah falaay mu ne laana insaana doomu aadama laa yataddu du mutat bi sakkan sikk fi ibtidaat si mutat laana asala ngir li am na asala nag cosaan adam ibtidaat mooy ñàkk mutat moo ko xam day sikk sàkk toj mooy doomu aadama moo ko xam dafay sikk sàkk toj lu li cosaan ba mooy ñàkk mutat waaye ki nga xamante ne su mutare moom dina xam ne moom dafa mutar moom dina xam ne dafa génn si islam waaye su mutar tamit dina xam ne moom mooy si islam kon kon mutar kenn kenn xamewun a si si mutar luy cosaan mooy ñàkk mutar mu ne kon ka nga xamante ne kon dafay sikk saak mutar na wala mutarul na jàpp ne kooku mutarul kon loolu lañ jotoon andi si dars bu njëkk bi si jub si yàlla lu si dëng suñu kàttan xam-xam la in uridu illa al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh